daa ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan daa leen jàmm si information yi tey nag ñi ñëw dem ba foofee ca Casamance fas nee leen jox information yi fa mujjee xew information yi mbokk na si si ki nga xam ne mooy Salif Sadio ginnaaw ba nga xam ni mi ngi woon foofee ca Casamance di fa def naka su dul noonu maanaam di dekk fitna ñenn si nit ñi nga xam ne ñoo fa dëkkoon ginnaaw boobee nag armée bu Sénégal daal di fay duggoon di fa fas yéene def mission yu am solo waaye ginnaaw boobee nag ki nga xam ne mooy Salif Sadio dafa daw daw bu yàgg daw boo xam ni ba tey mën nañoo wax ni kenn tegu ko bët waaye ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi koy sikki saaka ndax ki nga xam ni mooy Salif Sadio dafa ñàkk bakkanam wala dafa génn àdduna wala ba tey mi ngi dund en tout cas nekk na loo xam ni dafa yéeme mu baax torop ñu bëri ba tey ñi ngi foog ni Salif Sadio dañ ko jàpp en otage ba tey ñu bañ koo wax waaye aussi mën a am ki nga xam ne mooy Salif Sadio jamono fi li nga xam ni mi ngi doon def foofee ca Casamance ak euh, yi nga xam ne ñoo jege Casamance foofee yëpp militaire Sénégal ñoom instant bii nii bépp passe boo xam ni Salif Sadio mi ngi fa woon ñoom ñoo fa teg tànk te Salif Sadio jamono ji mën nañoo wax ni nekkatu Casamance maanaam base yi nga xam ni nekkoon na fa dafa def naka si du noonu moom ak waayam jamono ji teel Sénégal ñoom ñoo fa nekk di fa def mission yi am solo